waaw loolu de am na waaw Luc combat bi rek xam nga nag pro feebar bi nag xam nga fii sax du waxu làmb ah mais mais nitu làmb fii gaañu ah mais problème bi mooy làmb combat boobu Luc bëgg na ko tëgg mais Covid bi moo baari affaire yi rek bu doon bi mu tëgg ko bu yàgg mais Covid bee tax mu ko yóbbu ba juillet ñi naan huis clos bañ a huis clos mais de bi am na combat bi moom day taxaw bu soobee yàlla waaw waaw 25 juillet bu soobee yàlla. mais dinañ ci ñëw léegi dootul yàgg jërëjëf. waaw ñun xanaa ku baax dem na ku bëggoon làmb dem na ki tax ma bëgg làmb dem na ki tax ma dugg ci làmb dem na ki tax ki nekkoon sunu idole dem na bi nu nekkan xale bu musaan dem di bëri ji ñun ñooy xale yooyu di taxaw ci buntu kër gi ñu leen di sarax mbiskit yéeg sarax yooyu. voilà ñun ci ñooñu la ñu bokkoon mu nekkoon jàmbaar ah jàmbaar